kaw présidentiel tam am na ci ñoo xamante ni nii euh, ay ay ay ay bëy lañ yu muuroo deru bukki parce que mënoo ànd ak nit ba pare bañ aw xeetam bañ ñi ko jege am na ay ministre conseiller ak ay ñoo xam ay directeur général yoo xam président Macky Sall da leen a jox teraanga pour ñu liggéey réew mi ñoo xam ni buñ teroon mag Sall suba ñu rey ko parce que ñenn ñi ñoo nga ses ñoo ngay cherché président jox leen port ñenn ña ñoo ngay cherché mu jox leen kuddu ñenn ña ngay cherché mu jox leen lonaas te poste yi ñu leen jox sax mos mënuñ ko mënuñ ko mënuñ ko mënuñ ko diriger am na ñoo xam ne sax bi ñu demee élection maire yi dañ leen a gagné conseil municipal yi lañ jënd door a mën a nekk maire bu ñu tax a wax mënoo ànd ak régime ba pare di teqatal kër gaal ga. il faut arrêter ma euh, ci kaw côté euh, kase Kassé mi wax ñoo xamante ni yow boo génnee ci bi cim réew léegi mat di ba doo xam ne ngay wax lu mu doon ñooñu kenn leen ñoo jox ay responsabilité nit koo xamante ni bu génnee léegi. ci pays pays bitim réew gi naan ba du xam lu muy wax lu mu doon boo ko dékkee micro mu wax waxi dof ñu waruñu leen a jox benn responsabilité ci réew mi il faut ñu jéem a sàmm réew mi sàmm ni nga xamante ni mooy intérêt réew mi président Macky Sall moom lay fal falu ñu ay APR APR majorité bu ndaw la sénégalais yi ñoo wóolu président Macky sàll fal ko mais koo wax mu ni maa ko faloo nag ba ma koy jàppaleeg ba ma toppee ci moom amul daraat mais après dañ laa fal yow président Macky Sall lañu woon fal ko boo jëloon majorité euh, nu mu tëddee APR mënut a yóbbu Macky Sall kon mënoo ànd ak nit défendre ko buñ koy wax dara yaa ngay envoyé ay message su ay ci am na ci ñoo xam sax ci biir APR boo xam ñu ne na Alioune Sall démissionné. ay Moustapha Diakhaté mii ne Alioune Sall démissionné maire sax da nga ko yow mënoo nekk sax maire mënoo am benn benn dëkk boo mën a nekk maire mais nga jël nit bañ ko contre ko di wax wax yoo xam ne kenn xamul lu mu doon parce que magam nga mere defar nañ ab gouvernement nekkoo ministre wala nekkoo directeur général wala joxuñ la ak ak ak ak ñoo xam ni daal mënuñoo amal mësuñoo amal réew mi benn njariñ mësuñoo wa defal réew mi benn activité boo xam te ni intérêt Sénégal la ñu sénégalais yi duñ leen bàyyi ñu taal réew mi.